sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci ñëw bi a seex muhammadul di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu may ko fan wu gudd ak wér ba naal am yépp mu yeggale ko tañ ànd koog moom di nuyu waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiital seyxan fii bu sa al imaam di ñaan yàlla dëgëral leen ba seen liggéey bi itam sunu borom nangu ko di sant kilifa gi ñu bokkal jataay bi ak nim mu ubbee jataay bi di delsi nag ci tomb bi nga xamante ni moom lañu dénkoon ngir ñu jéem cee gëstu muy tuuba wa mutatallabaatu suknaha <coughs> loolu nag mooy dëkke Tuuba yan taxawaay la aajowoo ñu bëgg koo jël ci <coughs> tomb yooyu nga xam ne moom la fi sëriñ bi tudd léegi kon ngir bañ a guddal dañuy tàmbalee ci rekk tomb bi nga xam ne moom la njëkkoon a tudd te mooy Tuuba ci boppam ak gox goxaan yi fi nekk ak sëriñ bi ko sosoon yan kër la fi njëkkoon a taxawal waaye balaa boobu dañ koy laytaale ci turu Tuuba rod na ci alquran ci laayay alladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi dikrillah ala bi dikrillahi tatma innul qulub alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa xusnu maab turu Tuuba kon rot na ci alquran ba mu ca rotee nag ci la borom xam-xami tafsir yi gëstu ci lu borom bi jublu ci baatab Tuuba wax nañ ci wax yu wuute waaye la boole seeni wax weesuwul Tuuba daal wàccuwaay la barab la bu nekk ca biir aljanna bu sunu borom dikk ñi gëm yàlla taragal ko loola mooy li boole seen wax yépp ci baatab tubaa barab la wala wàccuwaay la ba sunu boroom def ca biir aljana te dikk ko ñi gëm yàlla taragal ko loolu mooy baatab Tuubaa mu di dëkk boo xamante ni nag sëriñ bi itam radiyallahu anhu na boroom dëkk bi nuroog turandoom wajal ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaahi xayri man abad mi ngi ko sos ci tollole ci atam 1888 kon nur na ne ba jëmmi jamono ji ñuy wax ci tollole tuuba amagun na téeméeri at ak fanweeri at ak ñett bi ko sëriñ bii sos itam mi ngi tolloon ci fanweeri at ak juróom dëkk na fi lu tolloo itam juróom-ñaari at bi mu ko sosee itam samp na fi ay kër yu mag yoo xam ne moo mujj tudd ay quartier bokkoon na ci kër ak Touba ak kër ak daarul quddus ak daarul minan ak daarul rahman ak daarul mannaan moo jiitoon ko itam daarul alimul xabir ak daaru salaam seex saalihu mbàkke yokk ci jannatul mawa ak jannatu naim ak madyana daaru tanzil jannatul firdawsi bustaanul arifin naka noonu itam umul qura waaye mu fekkoon fi dëkk yoo xamante ni itam nag ci àtteb Tuubaa lañuy bokkoon muy Gédé naka noonu itam surra man ra amoom mi ci biir dëkk bi ak Aliya ak Ndindi ak Guy Mbind ak kër Sëriñ Ñaan Jóob ak Daarul Karima Xaayira ak kër Ñang ak ak Lasar ak yeneen yoo xam ne itam tudduñ ko waaye dañ doon joxe misaal rek mu am nag ay màndarga yoo xamante ni ak i barabi ziyaara yoo xamante ni ku dikk Tuubaa bari waane lu ñu fay dëgmal di ko siyaare ji ba ca njëkk mooy jumaa ju mag ji ak barabu sëriñ bi ak barab yi njabootam gi ak kàggu téere gi muy bibliothèque bi ak aynu rahma ak jàkkay daaru xuddoos fa sëriñ bi doon defe xalwa bi ak bayti ak armeel yu mag yi di guy taxe boo déggee nag ñu tudd quartier yi lay taayal ko waxtaan wi dafa am lu ñuy sàkku lañuy sàkk mooy kilifa yi nga xam ne ñoo yor baat ci dëkk bi ñu sàkk mbooloo yoo xamante ni lay seen liggéey mooy wutal quartier yi ay tur wutal mbedd yi ay tur màndargal kër yi ci ay numéro yuñ koy xàmmee ndax loolu dana yombal ku fi bëgg a gindeeku ku réer ñu mën laa teel a gindi ndax dañ xam turu quartier ba nga jëm turu mbedd ma nga jëm tur euh, numéro kër ga nga jëm loola lu ama am njariñ la ndax bariwaana lu nit di réer ci màggal gi du gindeeku ba du gis ay mbokkam ba màggal gi weesu waaye ñooñu itam nañ boole ci seen liggéey mbooloo moomu kilifa yi war a tànn nañ ca boole ci seen liggéey turi quartier yu yees yi nga xamante nii nit ñi ñoo ko fentalal seeni tur te loolu itam jaaduwutoon nag ndax boo fekkee boroom kër mu tudde ba noppi boo ca dee yokk itam da ngay delluwaat ci moom wala fa mu doon tibbee di fa balluloo nga dellu fa waaye ku nekk xam na ne sëriñ bi tur tur yi mu doon tudde ay turi këram yooyu turi lislaam la kon mbooloo moomu war nañoo bàyyi xel mu boole ko ci seen liggéey ñu ngéntewaat ngéntewaat laa koy mën mën a tudde karce yu yees ndax jaaduwut ñu fi gis quartier guy géeg saxaw geeg kàdd ga walla rat ga walla ñu koy tuddee sant ña fa dëkke loola nag dafa amul ñu koy saytu waaye bu amoon mbooloo moom mu ñu wax ñu koy saytu dañu wutal tur yooyu quartier yooyu ay tur yoo xam ne ña ngi koy balloo ginnaaw bañ ci amee ndigalal kilifa yi ñu koy balloo ci tur yi lislaam yooyu nga xam ne sëriñ bi moom la daan tuddee këram yu mag yooyu tombam ñaareel bi dëkk bi nag sëriñ bi daf koo fonkoon loolu bëgg ko muy Tuubaa li ciy firnde ji mooy yàlla baaxe woon na ma ak ngoon ci jëmmi jamono ma demoon Gede Buso fekk fa al imaam sunu maam sëriñ Modou Khari Fañang Buso rahimahullahu wa radiya anhu tàkkusaan googee day muy waxtaan ak ñun wax nañu fa loo xamante nii ah am na solo lool te gàtt na lool itam ndax la tax mu gàtt mooy am nett li moom bu ñu lay nett ci sëriñ bi boo toogee koo xam ne danaan sëriñ bee ma wax may dégg ma wax la gàtt na te loolu nag am na ci lii may bëgg a nett nett li maam Moodu Xari Faañang bu sa moomu rahimahullah daf ñoo wax ne sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko wax li tax ni mu bëggee dëkk bii di Tuubaa amu ci sago bëgg na ko bëgg goo xamante ni amu ci sago ndax mu ne sëriñ bee na ko dëkk bi muy pàkk bi dafay nekkoon labreer yëpp bëgg ko baat boobu la jëfandikoo keroo labreer yi mooy nit ñu baax ñi bëgg ko nee na ma ne tam ma bëgg ko nee na sunu boroom digal pàkk bi ne ko tànnal ci nit ñii la bëgg ñu baax ñii la bëgg tànn ci yow koo gën a bëgg yow pàkk bi nee na pàkk bi wëlbatiku tànn ko moom Sëriñ Tuubaa mu ne looloo tax nag mbëggante googu nga xam ne dañ ko joxlante ma bëgg ko mu bëgg ma moo tax awuma sagoo ci dëkk bi ci bëgg gi ma ko bëgg loolu nag aw sas la wu rëy rëy ci ku fi dëkk dëkke ngir mu xam lii ñu bëgg a waxtaane lu mu doon ak lan moo ci war a nekk ab taxawaayam ndaxte kat bariwaana lum nett dañ ne waxoon na itam moom sëriñ bi ne <coughs> bëgg gi mu bëgg pàkkab daaru ak tuubaa day dellu ci yéeneem ju sell jam ko sose jam ko sañce ndax nee na nit daana dellu ci suuf ngir dekkalaat ko ngir dekkal suufi maamam wala suufi baayam waaye noonu loola nag andiwuma ci ñaari pàkk yi man Sëriñ Tuba nit daana dellu ci suuf itam ngir bëgg ne suuf si dafa naat ma bëgg koo bay rek moo fi andi waaye mu ne loolu andiwu ko ci mu sanc Daaru Salaam andiwu ko ci mu sanc Tuuba waaye nee na yéeneem ju sell jam amoon ci jaamu yàlla ak wéetal ko moo tax mu sañ ci ñaari pàkk yooyu loola itam nekkaat weneen sas wu rëy woo xamante ni ku dëkke dëkk yu mel nii muy Tuuba ak Daaru ak yu jël ay atteem nay bàyyi xel noonu ko sëriñ bi fonke woon ak yéenam ju sell jooju fas yéene fee nekk na mu ko bëgge woon daana tudd ñaari pàkk yooyu itam lu baree bari ci ay waxam ak ci deeyalante bi mu daan deeyalante ak boroomam laka daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi fihima daa uduni yow yàlla yaa moom daaru salaam ak tuuba yàlla nga fa def lu tax nit ña sax fa ci ay xéewal ak i dëkkuwaay yàlla nga def ci ñaari pàkk yooyu xéewal goo xam ne dana tax ña fa dëkke man faa sax man faa dëkk daa ñaan yàlla itam mu delloo si ko tuubaa yassir rujuwaan yi di tuubaa wax mi ni waqi ni adal wara waltu tib lii thamma iskaana ñaanoon na yàlla itam ne ko maa ngi lay ñaan yow yàlla sama dëkkuwaay bii di tuubaa mu gën mu mu gën la ci dëkkuwaay yi nekk ci sunu suuf sii gënal sab yonente mu yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wajalhu ya rabbi ahaba maskani fi ardina walil maaxi sani kon dëkk baangoogu ñu jàll ci kon ay jagleem noonu la ko sëriñ bi sànce loola yéeneem juróy ja lii la ci mébét kon nag lan mooy jagley Tuubaa ana lan moo ko ràññele ak yeneen dëkk yi bañ ber ko tey jii di wax ku fiy dëkkee nu mu fiy dëkkee ak lu ñuy séentu ci moom bokk na ci jagley Touba bari na waaye ñett lañ ciy tudd yu mag ba ca njëkk mooy Touba milkiyatun xaasa lil di xadimi radiyallahu anhu milkiya xaasa la mooy moomeel la goo xamante ni kenn séq kook Sëriñ Touba nag moo ko moom kon <clears throat> loolu nga xam ne waa jamono dañ koy tuddee statut spécial wala ñu koy tuddee titre foncier tuubaa moom la nekkul domaine public bu mu bokk kenn waaye moo ko moom nit nag bu amee këram mu am titre foncier la mu fay digle moo fay dox kon li nar a feeñ ci waxtaan wi ci li Tuubaa ràññee ko ak yeneen dëkk yi li koy wone mooy dafa am boroom bu ko moom moom Tuubaa te itam yëmut ci moom ko rek ci wax waaye ñi dikk ginnaawam itam dañ ko wutal këyit yoo xam ne waa àdduna nangu nañ ne ku ko am muy titre foncier ku ko am yaa moom yaa moom fa nga ko jëme te Touba am na ko nag muy benn mu ñaareel ba ci jagley Touba mooy liñ junjoon ne dañ koo sos ngir jaamu yàlla rek tabaraka wa taala ak liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam néewaa na nga gis ab dëkk nag boo xam ne laaj nga ko ko sos lu tax nga sos dëkk bii ndax yim njëkkoon a wax bari na lu tax lu mu puuse nit ci mu sañca dëkk daa koo sos ngir dekkal sama suufas maam wala sama suufas baay wala dama fi doon bay ngir suuf si naat na ba mu far soppeeku dëkk bari na ci tontu yi waaye lu tax nga sos sab dëkk nag mu ne ngir jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu lañ fay waxe mooy hiya madinatun islaamiya dëkkëb lislaam la loolu moom bu ko kenn weranteet dëkkëb lislaam la ginnaaw dëkkëb lislaam la nag moom Tuubaa nit lislaam a a dëkke lislaam ñoo war a dëkke loolu itam kenn waru caa werante dëkkëb lislaam ñoo ko war a dëkke waaye niti lislaam yuy wéetal yàlla tabaaraka wa kon ci cosaan kuy wéetal yàlla nekk ab jullit mooy dëkk ci dëkk bii waxuñ na na yéefar yi duñ fi dugg mayeef na yéefar mu dugg fi ngir def fi ab liggéey te ñibbi yéefar mën na fee ñëw ngir liggéey si def fi commerce tabax si fi yore fi entreprise waaye bu mu fi liggéey lu wuuteeg lislaam rek bu mu fi liggéey lu wuuteeg lislaam waaye dëkkab jullit la nag moom muy ñaar ñetteel ba ci li Tuuba ràññeekoo ci yeneen dëkk yi mooy dëkk la boo xamante ni nag dañ fiy tere yoo xamante ni deefu ko tere ci yeneen dëkk yi Touba mooy dëkk boo xam ne dañ naan doo fi tux te boo génnee ci yeneen dëkk yi man faa tux dees fi naan sàngara tam ngi am ci yeneen dëkk yi deef fi carte xaalis deef fi déglu misik dees fi ko fi tëgg ah yooyu nag mu ngi am ci yeneen dëkk yi nag terewuñ ko fa fu ñu koy teree kon am nga jagloo jagle am ak jagle te Tuubaa nag loolu am na fi kon dañ fi tere itam pomu dëgganut pomu dëgganut des fi tere itam yére yu gàtt yére yu gàtt nag yëmut ci jigéen ñi rek waaye góor ñi itam amuñ waruñu fee am sañ-sañ sol fi ay kilo di taxawaal ci mbedd yi jigéen ñi waruñu fee sol yére yu gàtt waruñu fee sol yére yu xat waaye itam jumaam ji ak barabam yu tedd yi kenn waru fee fréquenté di sol loo xamante ni jaaduwut sol fi ab tiset boo xamante ni ab fokat bu mag lañ ca lañ ca netaal ab fecckat bu mag lañ ca netaal am mbër lañ ca netaal loolu rafetul jëkkut war nañ koy moytandiku itam ci dëkk bi kon ñetti mbir a ngi noonu yoo xam ne Tuubaa daf cee ràññeeku tax mu am ak jagleel ba ñu war a waxtaanee ku fi dëkk noo war a mel ak loo war a def ak loo war a wax kon looloo ñuy yóbbu ci ñeenteelu tomb bi mooy se melokaan yi nga xamante ni ñoo ngi séentu mu daje ci ki bëgg dëkk ci Tuuba walla ku fi dëkke ndax nit dana dëkk ci dëkk bi te dëkk bi dëkkoowu ko loolu itam nañ koy bàyyi xel kon melokaan yi ñuy bëgg a wax mooy melokaan yi nga xamante ni ku <coughs> ko melowoo dëkk nga ci dëkk bi dëkk bi boolale ci ñi ko dëkkoo ba ca njëkk nag mbokk yi mooy kii dëkk ci Tuubaa na nekk ku gëm yàlla te du tëña gëmam googu da koy teg ci tawxiid day jàng ba xam ni ñuy gëme yàlla mu gëme ko noona day nangoo jaamu yàlla itam te du ko tëñaxu day jàng fiq ba xam ni ñuy jaamoo yàlla mu jaamoo noonu yàlla day am jikko yu rafet te du ko tëñëxu da koy jàng ca ilmu tasawuf xam-xamu tasawuf ba xam ko kon ñett yooyu li njëkk mooy ki fiy dëkkee na seet boppam ba xam ak gëmam yàlla wér na ak jaamu yàllam wér na ay jikkoom yu rafet tam mi ngi ci moom muy benn bu ñaareel ba ki fiy dëkkee itam li jaadu lay wax de li jaadu dangaa war a jàng te gën a néew ca la ngay jàng itam lum néew néew néew ci ku dëkk Touba war ngaa jàng ba xam sa faratay jëmm faratay jëmm nag ñu ngi ko tënk ci nu ñuy laabee war nga koo xam lum néew néew nu ñuy jàppe nu ñuy tiimee nu ñuy sangoo sangu set nu ñuy jullee farata yaak sunna ya ak yan ca sopp nu ñuy woore nu ñuy natte asaka nu ñuy ajee màkka nu ñuy amee jikko yu baax ba mën koo jikkoo nu ñuy xamee nu ñuy fexe ba xam jikko yu ban ba man koo moytandiku yii lu waaye àlluwaam lu mu gàtt gàtt gàtt te dëkke Tuubaa daf ko war a xam daf ko war a xam nag suñ ko waxee mooy bala muy wuti ab liggéey di wuti métier na ko jiital ba noppi wala su ko yëf yi ñattamalee dëgg dëgg dëgg na ko boole ak njàngam métier lu ma bëgg a wax mooy lan mooy yow am menuisier nga dëkk Touba di jàng menuisier na nga ko booleek jàng sa faratey jëmm yooyu yow ab tëgg nga dëkk Touba na nga jàng sa faratey jëmm doog dugg dugg sa mbaaram tëgg wala nga boole leen ab commerçant nga bala ngay dem ca boutique ba na nga jàng sa faratey jëmm yooyu boole ko commerce ma wala nga jàng ko man ko doog def ak tailleur nga maçon nga loo man di doon lii de moo jaadu ndax boo ko defut li sëriñ bi tudd ci dëkkam bi doo ko mën a taxawe kon jàng googu nag muy jàng ba xam sa farate jëmu la ca gën a néew munta ñàkk walla jaadu na wala moo waroon a am ci ku dëkke dëkk bi ndax sëriñ bi daf ñoo yàgg a soññee ci jàng lool ak jàngale dafay waxoon ne àllimu abnaakum wa azwaajakum wa kulla man taallaqa bi azyaalikum ma awjabahu llahu alayhim wa illaa sawfa tusaluuna yowma alqiyaama nee jàngal leen ginnaaw ba ngeen jàngee ba nopp jàngal leen seen ak njaboot jàngal leen seeni soxna ku aju ci yéen jàngal leen ku muy surgasee ku man doon jàngal leen li yàlla togg ci seen a mbagg ñu war koo def te kenn mënu leen caa taxaw kenn mënu leen koo defal bàyyi leen nee na su ngeen ko defut ëllëg bis pénc yàlla dana leen ko laaj sëriñ Tuubaa ko wax mu waxaat ne faratay jëmm yi moom sëriñ bi nee na mënut ñàkk mooy yooyu mu tuddoon nee na jar na nga jàng ko donte ne ci saw làkk wi nga nàpp nàmp nga koy jànge demal nga jàng ko ci wolof wala séeréer wala bambara wala joolaa loo mën a xam si sa làkk wi nga nàmp bu fekkee boo ca jàngee mën a xam faratay jëmm yooyu nee na jar na ko mu sëriñ bi sëriñ bi teg keneen moo tax mu ne taallamuha walaw bil lughati al ajamiyya donte ne ci sa làkk bi nga nàpp nga koy jàng def ko munta ñàkk wa illaa soo ko nanguwuta def nag ah man na illaa nafsa ëllëg bis pénc nee na yàddaa ngi munta ñàkk de waaye sëriñ bi nee ne bis ba ñuy nit ki yedd boppam bu jotee muy bis pénc yow mi defutoon loolu bul yedd ku dul sa bopp wax ju diis la nag ci ku xam sëriñ Tuubaa wax jooju nee na ku defut lii mu la wax ëllëg boo yedd bul yedd ku sa bopp mu def ko itam moom dëkk bi li tax jàng mënu fee ñàkk sëriñ bi daf koo def muy dëkkëb sàkku xam-xam wajanhu dëban maskana taallumi def ko bërëb xalaat wa mawdi al fikrati def ko bërëb bërëb boo xam ne fa la ñuy xamee maanaaya ndànk-ndànk muy wat tafahumi def ko bërëb boo xamante ni fa la mën a jubbantikoo muy wa maskanal irsaadi wa taalimi mu def ko barab boo xam ne fa lañuy ñuy jubbantee maanaaya di fa def nit mu xam maanaaya xam gu wér cëng muy wa maskanal taswibi wa tafhimi ka wax loolu nag ñam yi waxal bëgg nañu am xam-xam ñetteelu melokaan bi nga xamante ni euh, ku dëkke Tuubaa war na koo melowoo wala boo moo war ci moom mooy lam xam na ko jëfe waaye nay na fexe ba tàmm nag tàmmal boppam di dem ci jàkka di julli julli yu juróom ku dëkkee Tuuba la war ci yow nga xam ko nga ñàkk koo xam mooy saw yaram war naa miin jàkka ngay teewe julli yu juróom ngir dëggal wala boog sunu borom dëggale ci yow ñaan gi sëriñ bi ñaanoon ci Matlabul Fawzayni bi muy sañ ci dëkk bi nee na woon yow yàlla yàlla nga fi saxal ci sama dëkk bii ñoo xam ne dañuy saxal julli juróom wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim alsalawaati alxamsa dëban yaa muin ñeenteelu melokaan ba ci ku dëkke Tuuba mooy war naa yóbbaloo ci ay jikko yu rafet ak i teggin nag war naa mën a jëflanteeg ñépp nag ci teggin yooyu ndax kon daal lay wax loola mooy ca biir am njàngam na ca boole téeréb nax ju xadaa il xaaj ngir mu mën a am ay teggin xam nu muy jëflanteek ñëpp ndax téere boobu kat ku ma saa jalgate ay teggin sax mag ñi dañ laa xanaa jàngoo nax ju te ca njëlbeen nga ma nga naan teggin bu fekkonte ni ab dëkk la sëriñ bi nee na yoon wa nga xam ne ku ko bu yegg ci ay teggin am ko nee mooy li mu lay bëgg a wax moo de boo dee ndaw na nga boo dee mag na nga yërëm gone ni ko baayam ak yaayam di yërëme boo dee ndaw na nga mag ki nga tollal ay at nga jàppe ko ne ko ne sa bopp te loo ciy def ci yooyu nga def ko ngir jëm yàlla tariqatul adabi rahmatu ka kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li wacci xaaliqin alal arsi stawa kon ku dëkk Tuubaa wërta ñàkk kersa dafa war a yaru loolu itam nañ ko ci xamaale ku dëkk Tuubaa wërta ñàkk dafa war a yaru juróomi melokaan melokaan ya ci ku dëkke Tuubaa daa war a nangoo topp ndigal nag tey mooy tandi ku tere ndax dëkk bi dafa am borom kon nag ku fi dëkk dangaa war di tënku ci ndigal boroom di bàyyi ay tereem bu nee la maay borom dëkk bi damay tere ku fi tox bu fi tox damay tere ku fi jaay naan sàngara bu ko fi naan damay tere ku fi misik ak di ko déglu bu ko fi def damay tere ku fi fo mu dëgganut bu ko fi def damay tere jaxasoo ak góor ak jigéen bu ko fi def damay tere ku fi njabar bu ko fi def damay tere ku fi kat xaalis bu ko fi def damay tere ku fi sàcc bu ko fi def bu fi wor bu fi jaay lu ñuy tere lu mel ne am pon wala sàngara bu fi jaay yére yu xat itam bu fi jaay ay kilot bu fi ñaw ay kilot bu fi ñaw ay yére yu xat di ko defal ay jigéen buñ sàcc dara itam indi la nga koy nga koy jënd kon loolu mooy waroo fee jëfandikoo ak njabar walla gisaane walla luxus wala kàtt xaalis waroo fee sàcc waroo fee jaay lenn lu ñuy tere ndax yooyu yépp nag kat sëriñ bi daf daf ko fee tere te ñiy dikk ginnaawam itam feddli ko dañ teg ko ci mat matlabul fawzayni wal taqina sarra nasaara wal yahud yow yàlla yàlla na nga ñu fegal ayu tubaab yu bon yi ak ayu yahud yu bon yi ak képp kuy weddi ak ayu jinne ak ayu dajjal ak ayu nit ku ñuul ak weex moo xam ñu bàyyi ko penkook sowu ak ayu wuy jóge ci asamaan wala wuy balle ci suuf wala jaar ci seen diggante ak ayu koo xamante nii day dajale ay wëñ di ko tiim di fas di di jàng di ca tafta la muy wax nekk di ca tiflita la muy wax nekk ak njabar ak ayu ko iñaan yooyu yëpp bëggul mu nekk ci dëkk bi ak lépp luy lore itam ba ca jaan yaag gaynde yaag ak njabarkat yaag ak kuy dox guddi te la muy dox xamuñ ko muy taariq teg ca ne itam sama dëkk bi daal ci gàttal maa ngi lay ñaan ab kàccoor bañ fee dëkk ab kàccoor bañ fee dëkk wa maskani salli min al fujjaari juróom-benneelu melokaan ba bi ñu yi ñuy séentu ci ku dëkk Tuuba mooy assalaaxu wal islaax ku fi dëkk war naa yiwee war naa baax baaxal ba boppam ba noppi wala wëlbati ku baaxal ñeneen ndaxte kat euh, ku baax ba noppi baax na de waaye baaxal keneen itam nag beneen daraja la waaye ñaar yëpp la ñaanal la ñaan ki fi dëkk mu melawoo ko baax ak baaxal ak di bëggal nit ñëpp itam aw yiw moo taxoon mu ne sunu borom maa ngi lay ñaan dëkk bi wala sama loxo bu ci jaarale koo xamante nii ab yàqkat la ak yàq akub yàq la kat te yàlla na nga tàbbal ci sama loxo itam ku yiwee ku baax ku defar kuy defare yàlla na ko tàbbal ci sama kër gii di Tuubaa itam wal tudxilil musliha fii yadi wa fii daari wa tabbi tanhu bilhaadil wa fii juróom-ñaareel ba ci melokaan yi yi ñuy séntu ci ku dëkk Tuubaa mooy ku dëkk Tuubaa nag waroo ëmbal ak mbañeel mbindeefam yàlla dangay ngay sopp mbindeefi yàlla yépp roye ko ci boroom dëkk bi dangay bëgg nit ñi bëgg rab yi wormaal leen yërëm leen bëgg gàncax gi itam di leen toppatoo yéene ñëpp ak ëmbal ñëpp itam aw yiw ak texe àdduna ak àllaaxira ndaxte foofu kan mbokk yi ku dëkk Tuubaa <clears throat> dafa war a sopp mbindeef yépp ab yéefar sax daf ko war a ñaanal mu tuub dugg ci lislaam ndax foofu la sëriñ Tuubaa nekkoon irham jamial wara waaye itam loolu moom ñu teg ko fële yërëm mbindeef yi ndax nit moom daa fonk boppam daa yaakaar ne yërmaande ci digganteem moroomam nit rek la yem déedéet ku dëkkee Tuubaa nag danga nga cay dolliwaat dolliwaat yërëm rab yi yërëm xam nga boo gisee ñu bëgg a taxaw foofu tuuti mooy ni nga dëkkee Tuubaa ñu la fi ay rab dëkke ay picc dëkk fi ay rab dafay dëkk ay picc dëkk fi nga dëkk fekk fas yi ak geneen jur gi nga war leen a yërëm kon nag dëkk bii ku fi nekk waroo sonal fas di ko ak mbaam di ko teg lu mu àttanut wala nga koy sëf doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko dëkkal fu baax te di ko liggéey liggéeyloo rafetul jëkkut war ngaa bàyyi xel loolu lool sax nag wax dëgg yàlla ndax euh, da koy def ngir ñaar da ngay yërëm rab yi yow mi dëkk Tuubaa ngir ñaar def ko ngir jimmi sëriñ bi def ko itam mu ngi ne dangaa dëkk Touba mu dëkk Touba dangaa mu dëkk Touba te fas yi ngeen di gis kuy négliger fas ak rab waroo dëkk Touba yeyoo woo ko itam wala boo ko xamoon doo ko def ndax man ngaa dëkk Touba de tali fas mii liggéeyal sëriñ bi defoo ko fas de xanaa tukkeem bu mag boobu nga xamante ni moom la ñuy damoo ci ical rujuwan ila xawmi saadatana ba sëriñ bi dem ci tukki tukki bi fas la waroon muy awnallah fas ba mu tudde woon awnallah war ngaa teral fas ngir loola te bu ko yemale ca fas woowee rek ndax ay sëtam mën nay daagu ci dëkk bi nag sëti fas yooyee te bu fi nekkoon nag du ba du bëgg kuy toroxal sëtam yooyu kon nag war maalal rab yi ngir jëmmi sëriñ bi ak jëmmi liñ dëkk ci dëkk bi noona itam nga def ko ci picc yi te roy ci ku mel ne Seex Suhaybu radiyallahu anhu ñi daa wut barab yu ñuy defal ndox picc yi wut barab yu ñuy sotti pepp ngir picc yi xam nga kooku ba mu fi jógee picc yi yëg na ne kilifa jóge na fi dafa xam rol bi muy war a def ci ku dëkk Touba ak nu mu war a yërëmee ñëpp waaye ku dëkk Touba itam war nay toppatoo gàncax di jëmbat ay garab te bañ koo gor te tegu ko fen ndax kat lii boo ko gisee lépp ñu koy wax mooy li sëriñ bi digle woon teg nee na woon luy fam yàlla te ñii ñëpp ma la wax kat ay mbindeef yàlla lañ rab xalima ko ko bind moo bind doomu aadama gàncax xalima ko ko bind moo bind doomu aadama te sëriñ Tuubaa nee na woon na ngay ëmbal mboole mbindeefi yàlla yi aw yiw kunu muhibbina xuyura muhibbina alxuyura li jamia xalqi ilahina almuqaddimi albadia bu dee nit ñi moom dane képp koo xam ne gis nga làmmiñam mu nangu ca wax laa ilaha illallah bu ko jàppem noonu fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah te loolu lépp nag mu tënk ko ci wax ju gàtt ci biir nax ju xadaayil xaaj moom Sëriñ Tuubaa dane maanaam boo bëggee noppalu mbindeef moo gis na nga ca xool yàlla ma ko bind boobaa da ko jox lam yayoo ci warmaal ak daraja waraaxi fii kulli xalqin xaqa man xalaq loolu kon lu ma tax delloo delloo si la juróom-ñetteel ba ci melokaan yi nga xam ne ñoo ngi koy séentu ci ku dëkk Touba mooy war naa nangoo liggéey ku dëkkee Touba war naa nangoo liggéey ngir am lu lew ngir mën caa dundal boppam dundal ca njabootam dimbule ca keneen di ca joxe àddiya ndax sàkku lu lew moom sëriñ tubaane na farata la farata nag ku ko xamul mooy loo xam ne soo ko defee te def ko ngir jëm yàlla sunu borom bindal la ca tuyaaba soo ko defut yayoo nga ca mbugal yayoo nga ca mbugal nee na nag sàkku lu lew mooy liggéey ba am lu lew farata la kon ku mën a liggéey ba mën a am lu lew te defoo ko yayoo nga am mbugal wala yaasu te xam-xam boobu ñu waxoon ne ku dëkke Tuubaa mënu koo ñàkk ak jaamu yàlla googu ñu waxoon ne ku dëkke Tuubaa mënoo koo ñàkk def sëriñ bi nee na ñaar yooyu benn du ci wér su fekkee nit ki day dunde lu lewut laa yanfaul ilmu wala al ibaada bil akli lil xaraami inda ndax nee na woon mooy tane ku leen lekk lu araam ndax lekk lu araam day jéng nit ki ba du mën a am ak njub waxoon na itam weleen sàkku la waxtu wu nekk ndax su ngeen bëggee mën a def ak njub man koo def su ngeen bëggee topp yàlla man koo def waaye itam dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne neex naa sàkkoo lew ndax sëriñ bee ko fi ñaanoon ñaanoon na borom ca Matlabul Fawzayni ne ko yàlla na nga baril yiwi dëkk bii yàlla na nga baril wërsëgu dëkk bii yàlla na nga ko fegal tiis yàlla na nga ko xëccal mbooleem yiw yi ci mbooleem wàll yi kaw ak suuf ndeyjoor ak càmmooñ penku saw wala kanam ak ginnaaw ndeyjoor ak càmmooñ kaw ak suuf wet yooyu yëpp mu juróom-benn wet yi ndax juróom-ñaari wet yi amu yooyu doo nga fi ne ñaanoon na wet gu ci nekk aw yiw di fa bale wër si dëkk bi kon kay ku fi nekk di sàkku lew te defe ko ca anam nga sëriñ bi bëgg war nga caa mën a jot juróom-ñeenteel ba ci melokaan yi nga xamante ni ñoo ngi koy séentu ci ku dëkke dëkk bi mooy ku dëkke Tuubaa war ngaa yaatu dënn war ngaa mën a muñ te yaatu dënn te mën a gàddu ba nga bangi mi fii itam war ngaa nekk koo xamante ni itam dangay ngay ubbi sa kër mooy nit ku yaatu ku xat tuubaa du dëkkam ku xat jikkoo xatal këram baye boo mu to ndax tuubaa du dëkkam ndax ku fi nekk ci dëkk boo xamante nii at mu jot mu teertu ay millions ay million ci ay nit ci benn bis wala ñetti fan boo xatee xatal sa kër yaa dëkkoo dëkk bi waaye dëkk bi dëkkoowu la kon ku dëkk ci dëkk bii war ngaa nekk koo xamante ni dangay man gan te ñeme gan di joxe aw ñam ngir jëm yàlla di joxe ak naan ngir jëm yàlla di ko jox ña ko aajowoo te def ko ngir jëm yàlla waaye itam nag di ku yaatu koo xamante ni day bàyyi xel di yaat ubbil kanamam gan ñi ñëw Tuuba yaatal leen du tëj kanamam day génn ci ay jàmba jàmbalanteem nag loo xam ne seetlu nañ ko ci at yu mujj yi ci biir jàmmante bi ci biir màggal gi ñuy jàmmante ngay jàmmanteek sa mbokk ba naan ko mbaa gan ñaa ngi wàññeeku mbaa gan ñaa ngi wàññeeku rafetul jëkkut ci ku dëkkee Tuuba mel na da ngaa jéppi gan ñi wala da ngaa ñu ñibbi te sëriñ bi wool leen ci dëkk bi kon doo doo wax mbaa gan ñaa ngi wàññeeku génne ko ci say masla ak say jàmmante te dooy doo yàkkamti ku ñibbi te doo tëj sa kanam itam ci kanam gan ñeeg nit ñu ñëw ci dëkk bi ndax yii yëpp nag yii yëpp sëriñ bi daf laa tegaloon aw yoon yow ki dëkke tubaa yoo xam ne boo ca jaaree war koo man ndax ñaanal na yàlla mbas bañ fee ñëw ay balaa bañ fee ñëw waaye wa tayyib ukulaha wa surbaha ñaanoon na dëkk bi nay am ay bernde yu neex nay am ay bernde yu neex nay am ay naan yu neex te sell sëriñ bi ko fi ñaanoon kon nag fexeel ba bokk ca bernde yu neex yooyu ak naan yu neex yooye nanga bokk ci surgay sëriñ tubaay yi koy defal ganam yooyu ndax moo ko ñaanoon ci wa tayyib ukulaha wa surbaha <clears throat> fukkeel ba ci yi nga xamante ni te moo mujj ci melokaan yi yiñ ci jot a dajale wala yiñ ci xam ñun mooy ku dëkke tuubaa daal war nga sàmm kaaraangeek tuubaa danga koy def sa yitte mooy dangay am jàmm ci sa bopp may nit ñi jàmm am jàmm ci sa bopp may nit ñi jàmm ah ndax loolu nag sëriñ bi moo ñaanoon boromam mu def ëttam bii mu aar ko ci wajal xarimana xariman amina yow yàlla yaa def yàlla nga aar sunub ëtt yàlla nga garante sécurité am ak gaara kaaraangeem wa kun bi xawdihi kafilan damina kon ku nekk ci dëkk bi itam lépp luy andi fitna waroo caa participer waroo caa bokk ba ci manifestation yi sax waroo caa bokk ndax xamoo fu mu jëm yow yow mi dëkkee Tuubaa rasulu salaam nga war a doon mooy ndawal jàmm ah moom nga war a doon boo xamee nag yowee kan moo tax may wax kon melokaan yooyu ku dëkke Touba war na koy bàyyi xel ñu teg ci nag eh, juróomeelu tomb bi yii ma jëkkoon a wax war na ku dëkkee Touba moo xam ngay mag ngay ndaw ngay góor ngay jigéen fukki yooyu ma wax lii may bëgg a wax nag mbooloo mii dëkke Touba ci ñoom lañ koy séentu ba ca njëkk mooy def na séentu ci ñi dëkkee Touba ñoom ñépp ñu dox ci luy tasaare njàng ak yarab diine njàng rawatina njàngaleem diine ak yarab diine ku dëkk Touba loolu sa responsabilité la te ñépp lañ ko gàll itam ci ñu war a dox ci lu fiy tasaare am njàng ak yaram diine lu tax ndax Tuubaa dëkkab lislaam la te dañ koo sos ngir jaamu yàlla te boo fi dikkee fekk fi jàngkaayu alquran fekk fi ay majalis yu jàngale xam-xam fekk fi ay école yuy jàngale diine ci làkku arab fekk fi université Cheikh Ahmadou Bamba fekk fi projet bu mag bii di mu jamoo Cheikh Khadim bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha taxawal yàlla na ko yàgg yeggale te ñu ànd ko moom boo fi dëkk boo xam ne da nga faa dëkk nag fekk fa junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci daara yi alquran fekk fa téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ndongoy daara yi alquran xanaa xanaa danga xam ne am na lu la war ci loolu ndax yow bu fekkee góor woo ba bokkoo ca góor woo ba bokkoo ca ña taxawal 1524 daara yooyu bokkoo ci ñay dugal seeni doom ca daara yooyu ci cent 127000 yooyu tegal yooyu bokkoo ci xanaa danga nga mën a jàppale daara yooyu bokk te am na loo xam ni te ne ka ko waxoon dub jullit de waaye wax na wax ju baax ndax alxikmatu daatul mumin lu baax wala kàddu gu baax foo fu ko jullit fekk war na ko mën a jëfandikoo ki ma déggoon mu wax dub jullit sax nee na yow mi fopp sa sa doom yóbbu ko ca daara ja doyoon na rek sëkk ci boo xamoon la ca war bët bu set soo xëyee nga ne sama dooma ja ma nga ci daara ja te bu fi nekkoon dana ndékki kon ñeenti bekk suukar yi naa ko fi tegal bu fi nekkoon dana añ kon genn waat liibaru ceeb yi naa ko fi tegal bu fi nekkoon dana reer kon nangam ci yi naa ko fi tegal nee na boo bu ko ñëpp defoon rek sax ba weer wi jot ñu yët ko sëriñ daara dara la ñàkk def dara moo baaxut di waaye loolu rek xalaat bu baax la ku man loolu nag dafa wax la gën a suufe la gën a ndaw waaye ku man lu ëpp loolu da ko def kon doo dëkk ci dëkk boo xam ne lu toll noonu ci ay daaraa ngi fi lu toll noonu ci ay ndongoy daaraa ngi naka noonu ay école yuy jàngale lislaam a ngi fi majalis yuy jàngale xam-xam a ngi fi ay université ngi fi nga am xaalis am alal ba noppi nag banque sa loxo mel ne sa yoon nekku ci tamit ngi am nag dëgg dëgg dëgg ñun waa tuuba bu ñu defoon li ñu war ci daara yi dañ leen jàppale ci ak jàngukaay yooyu dañ leen jàppale ci ab dund danañ jàppale ñay jàngale ci payoor bi dañ leen jàppale ci cat ga waaye danañ fopp suñuy doom itam nangu leen yóbbu ci daara yooyu ak jàngukaay yooyu ndax ku ubbi daara wala nga ubbi majlis ilmi wala nga ubbi madrasa islaamiya dangaa bëgg